في هذه الأيام المباركات التي نستقبل فيها أشهر الحج وفي مدينة كارن المحروسة أن نلتقي بكم مجددا للحديث حول موضوع بالغ الأهمية بعد أن تلقينا إذنا ومددا وتبريكا ودعوات من الشيخ الجليل مولانا الشيخ إبراهيم نجل الشيخ محمد نور الدين إبراهيم يس الذي نتوجه إليه بخالص الشكر وبفائق التقدير والعرفان لما يجدده نحونا في كل عام من ثقة ولما يتفضل به إلينا من نصائح وتوجيهات ونقول لا غرو إذ إنه سليل الأكارم إذ إنه مظهر من مظاهر الهمة الإبراهيمية والتوجه النوراني والجهود النذيرية فلا غرو أن يكون كما نعرفه وتعرفونه نسأل الله له دوام التوفيق والنجاح ونسأل الله أن يمتعنا سنين عددا بطول بقائه وصحته وعافيته مع كل من يتعاون معه ماديا ومعنويا ولا ننسى في هذا الصدد أن نخص بالشكر والتقدير لإخواننا الكبار وأساتذتنا الذين أخذوا بأيدينا منذ نعومة أظافرنا إلى العلم والمعرفة وما زالوا معنا جنبا إلى جنب في الدعوات والتوجيهات والتشجيعات فجزاهم الله عنا خيرا أذكر منهم الأستاذ مام صمبنيان والأستاذ شيخ محمد نزير نيان ولا أنسى زميل الدرب ورفيق الغربة الأستاذ حبيب سي مقدم البرنامج وأتوجه بعد ذلك بالشكر والتقدير والتحية والتهنئة للإمام سيسي وكافة الأئمة ولرئيس بلدية كارن وكافة الزعماء والوجهاء الدينيين والتقليديين وموضوع حديثنا اليوم بإذن الله هو الشباب في الإسلام أو الشباب في المجتمع وإن شئت قل الشباب في الحياة سيما في رحاب الفيضة التجانية الإبراهيمية العظمى إشارة إلى تحديد هذه المسؤولية الكبيرة وتطلعا للمستقبل الباهر المنتظر وتنويها إلى ما يجب نحوهم من إعداد وتكوين ونرى أن الموضوع جاء في حينه وتم في محله إذ إن قدوتنا في هذه الجلسة في هذه الجلسة لم يعبر بعد مرحلة الشباب وأن معظم الحاضرين من هذه min min min min yamurruuna bi hadihi almarhala alxatira walmuhimmati lilgaaya mbokk yi ñi ngi sant yàlla di julli ci yonante yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama di ko ñaanal di ñaanal ay saxaabaam di am mbégte lool ci toogaat fii janoog mbooloo ci weti sang si toog pour waxtaan ak yéen ci thème bu am solo boo xam ne dafa itteel jamono ju nekk waaye rawatina jamono ji ñu nekk thème boobu nag mooy ndaw muy jeunesse ak lan mooy taxawaayam ci société bi nga xam ne ci lay dund loolu laa doon wax léegi ne tem la bu ñëw ci jamonoom tem la bu ñuy waxee ci palaasam ndax ki ñuy teg bët ñun ñëpp tey di ko roy rawatina ci jotaay bi ñu toog ak ci jéego yi nga xam ne moo ñu jëmee ci jataay bi mooy suñu sëriñ suñu doomu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim mu Mawlana Cheikh Mouhamad Nuruddin miy toog te moom suñu xoolee ay atam ci zahir du sore at yi nga xam ne bu ci nit tollee dañ koy joxoñ ne jeune la kon suñu royukaay ci liñ bëgg a wax dama ne du loo du doon lu sori du doon lu jëfe te li ëpp ci mbooloo it booy seet ñu ngi ci diggante boobu ñuy nuyu imaam yi di nuyu borom quartier yi di nuyu meeru dëkk bi waaye di nuyu suñu sëriñ si suñu ustaas yi toog te gis ngeen ñi ñu ci tudd di nuyu suñu naataango suñu wëllare al ustaas Habib di nuyu xanaa délégation bi ma àndal jóge ko Medina sànga di nuyu waa Kaarang yépp nag ndax ustaas Habib mu ngi koy wax démb dañ fi daan tukki si pour ñew def fi ay waxtaan tey nag dañoo nekk dëkk ñu gan waye dañoo bok ci ñi dalal gan ñi ndax yalla dogal ñu fété fi agum, pour ligéyal Sénégal waye pour ligéyal diine l'islam ñi ci ñaan ñepp ñu defal ñu ñaan ndax yalla yok ñu tawfiq ci lool di tari ben aya pour xamlé lan moy ndaw muy étape boo xam ne nit ki def koy traversé ci dundam am lu ko jiitu am num ciy mel am num tudd amit lu ci topp am num ciy mel amit nu ñu ko tuddee suñu boroom wax ne huwa alladi xalaqakum min turaab summa min nutfatin summa min alaqatin summa yuxrijukum tiflan ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون برم سبحانه وتعالى دي نفتلي سنو چوسان وخني يالا ميسين برم برم mooy ki leen sàkk ngeen bàyyeekoo ci suuf kooku mooy suñu maam aadama ñépp xam nañ ne yàlla ko sàkk ci ban ci suuf mu teg ci ne summa min alaqatin topp ngeen jóge ci ndox kooku mi ngi ñuy junju suñu cosaan ñun ñi nga xam ne ñi ngi sosoo ci diggante góor ak jigéen mu ne gannaaw loolu ngeen nekk di alaqa muy lumbu deret gannaaw gi ngeen jaar fi ngeen war a jaar ci seeni biiru way jur ba seen bésu gane àddina jot yàlla ne mu dogal ngeen juddu di ay xaleel gannaaw gi nag ngeen dëgër ba nekk ay jeune gannaaw gi mu def leen ngeen nek ay mag am ci yeen ño xamne danañ genn adina bala ño yek si fofu am ci yeen ño xamne danañu egg ci dir bo xamne yalla moko xam moko tuddu te am ci benen aya sax fu mu nan wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur li kay laa yaalama min baadi ilmin shay'a boroom xam-xam yi wax ne aaya bi daf ñuy junju juróomi étape yoo xam ne doom aadama bi def ciy jaar am na sax nag booy seet bu ko jiitu mais boobu étape bi nga xam ne dafa jiitu juddoom la mu nekk ci biiru yaayam waaye fi mu ganee àddina ba gis leer bi ni ko araab yi di waxe mooy étape bu njëkk bi te mooy bi mu juddoo ba keroog muy am fukki fukki at ak juróom gannaaw gi mu doxee foofu ci fukki at ak juróom ba bi muy am fanweeri at mu doxe ci gannaaw bi mu amee fanweeri at dugg ci beneen étape ba ba muy am juróom fukki at gannaaw gi mu continuer jóge juróom fukki at ba juróom ñaar fukki at mu doxe nag ci juróom ñaar fukki at nag jëmba yàlla di yemale dundam étape bu njëkk bi mooy état bu tufula xaleel lañ koy tuddee ni muy touté mune waye muy mag mom mui ba keroog muy wërngal def di weeru badr di weeru 14 jours mune bala yag rek nga gis weer di kuat, di wàññeekuwaat di wàññeekuwaat ba wat nam tolon ba muy fenk bu yàggee ñu ne weer wa suux na dootuñu ko gis kon loolu def lay misaal yow doomu aadama sa dund bi bi nga juddoo di ndaw ak bi nga demee ba mag nekk koo xam ne say cër yépp mat na balaa yàgg rek kàttan gi commencé wàññeekuwaat yaa ngi delluwaat ci neew doole bi nga xam ne ci nga commencé woon yazdaadu xatta ida ma aqabahu karrul jadidaini naqsan summa yamtahiqu moy liñu don doon non gis nañ arab yu bari di joy li nga xamne moy sen jeunesse te lolu xeyna ci walu bind rek motax ñu diko wax waye bari na kunan bu tay don demb wala bu demb don tay parce que day fekk yaa ngi gis loo mën tut ngay fàttaliku bi nga koy man kon yow mi ndaw balaa mën a di di la dab war nga góorgóorlu bi nga manee wala shababu xamidatan ayaamuhu yaa layta dalika yushtara aw yarjicu wa innama ganimatul ins insaani shababuhu wal xusru fii fii sheyxuxatihi aw fii harami doomu aadama fi muy tonoo mooy bi muy nekk xaleel waaye su nekkee ba mag rekk dafay commencé di rëccu ak di jéema fàttaliku yoo xam ne passé na ko mënoon ko te xëy na dootu ko mënati ñaareel bi ci li wone ne étape bu doy waar la inna shababa nawaatul mujtama'i wa bizratuhu ndaw réew moo gis ñooy jiw réew ma te ñoom ñooy xoox ba walla saal ba nga xam ne moom rekk lañ mën a ji pour amaat yeneen yeneeni meññet walla yeneen yeneeni garab gannaaw bi nga xamee ne garab yi fi nekkoon mage nañ ba mënatuñoo meññi lu jëriñ société bi moo tax alquran sax di wane ni njaboot amee solo muy tagg ñi nga xam ne dañuy ñaan njaboot gu barkeel ndax njaboot googu mooy nekk xale tey suba mu nekk jeune pour mën a jariñ société bi suñu boroom ne walladina yaquluuna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama kon nag ndaw marxala bu am solo bokk na ci li koy wone ba tey ndaw moy tiitaru réew mu nekk mooy teddangaam mooy fierteem waaye mooy forsam réew laa wax waaye dëkk yitam ndaw moo fay yaakaar kër sax ndaw moo fay yaakaar réew mii ñu nekk tey lépp luñ mébét pour réewu Sénégal egg ci ëllëg kañuy xaar mu réaliser loolu dugut wut borom kawar yu weex yi waye borom kawar gu ñuul rek lañ yaakar pour ëlëk mu jëyanti réew mi mom lañ yaakar ëlëk pour mu nekk denc bi nga xamne waxtu wuñ ko génné ñepp gis ci seen bop bok na ci li wone lolu ben sha'ir dafa xol nawñi di len fatali sen responsabilité di len ñaax mu wax ne xayi shabaaba wa waffihi l ijlaala wa aqid ala azamatihi l amaala mu ne nuyul ma ndaw ñi sargal leen te nga màggal leen màggal gu mat sëkk waaye na nga yeew sa mbooleemi mëbét ak sa mbooleemi yaakaar na nga ko yeew ak buum bu dëgër ci seen dogu bi ak ci seen gëm-gëm ak ci seen décision ak ci seen itte mu ne ku nekk si ñun na jël ay mëbëtam yeew ko ci ittey ndaw ñi kon nag ndaw ku ñu yaakaare la war naa fexe ba bañ a tas yaakaar mu ne al yawma antum ya shababu rajauna sanuiddu minkum lil biladi rijala mu ne yéen daw ñi tey yéenay suñu yaakaar comme que yéenay suñu yaakaar nag danañ préparer ci yéen tey ñoo xam ne dañuy doon ay góor ëllëg pour amee société bi mu ngi junj loo xam ne danaa leen won naka la ko lislaam taxawee waaye naka la ko Cheikh Ibrahima xamee woon ak naka la feeñee ci ay jàngaleen sa nuiddu minkum lil bilaadi rijalan al yawma naarifukum shababan taamihan wa gadan sa naarifu fiikumul abtaala tey xam nañ ne yéen ay ndaw ngeen yoo xam ne am ngeen espoir am ngeen ay tumuxaat ñëpp riirandoo ñëpp jógandoo ñëpp départandoo waaye ndaw lu am gëm-gëm ndaw lu am xam-xam ndaw lu am jikko ndaw lu am itte moom mooy fëll ëllëg bokk ci ñi raw ba bu ëllëgee suñ joxoñee ñu boole ko ci abtaal yi te mooy héros yi te mooy jàmbaar yi nga xam ne raw nañ seen moroom yi gannaaw biñ jaaree ci kursu ci anam yu bare bare bari bokk na ci liy wone importance su tolluwaay boobu alshabaabu zahratul xayaati wa bakuratuha gis ngeen tontoor yi nekk ci garab yi ni mu sensible te suñ ko gisee rekk ñu yaakaar meññet ndawi société bi ñooy tóor-tóoru société bi waaye tóor-tóor yooyu ni mu sensible bu ko fi ngelaw fekkee daf koy bàcc mu daanu ba bu ëllëgee mango ba walla garab gu mën a doon dootul meññi waroon meññi léegi ndaw ñi nag comme ñooy tóor-tóoru réew mi lépp luy taxaddiyaat muy ay défi yoo xam ne mi ngi seen kanam. war leen a gàllankoor yàq seen avenir moo mel ni ngelaw yooyu nga xam ne xal naa ñëw daaneel tontoor yi bu ëllëgee garab gi dootul meññ loolu moo tax étape bu sensible la ku ci toll danga nga war a moytu lu bëree bari ba mën a garder sa tontoor yi bu ëllëgee nga mën a génne ay meññet yu jariñ société bi ñooñu la yàlla di junju ne adhabtum tayyibatikum fi xayaatikum dunia ñooñ àllaaxira la koy wax waaye yow mi jeune mooy dem ba sa kàttan jeex sa doole dëddu la fekk nag caaxaane nga sa ndaw te li nga mënoon dootoo ko mënati alshababu masuliyatun wa amaana nekk ndaw responsabilité la bu mag te itam wëllëre la goo xam ne des la ko laaj ci kanam société bi waaye danañ la ko laaj ci sa kanam boroom waaye danañ la ko laaj sax yow ci sa kanam bopp moo tax ndaw ñooñu ñoom ñooy soldaaru armée bi ñoom ñooy commerçant bi ñoom ñoom ñoom ñooy jaaykat bi ci marché bi ñooy enseignant bi ñooy chauffeur bi ñooy maçon bi ñooy navigateur bi loo xalaat ci fu ñu war a taxawee société bi rek ndaw ñi ñoom ñooy ñi ko fa taxaw waaye ba tey ñoom ñooy ñi ñuy seentu ne ëllëg ñoom ñooy régler société bi kon war nañ leen a taxaw bu baax ci lu gaaw rek ci wane ne ndaw responsabilité bu mag la dañuy gis li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne laa yazuulu qadama qadamu bni aadama yowma alqiyamati min indi rabbihi xata yusala an xamsin doom aadama bi yowma alqiyamati du seq jéego dem fenn ludul ne danañ ko laaj juróom yef danañ ko laaj dundam bi ci lum ko jeexal an umrihi fi ma afna sa dund bi ci lan nga ko jeexal xam nga boone an umrihi rek état bi dundu bi yeb duguna ci bi ngay ndaw bi ngay jeune bi ngay mag bi ngay magat lepp duguna kon an umrihi jeexal na sa état bi dundu bi yeb waye am solo gi jeunesse am solo motax mu setti wat ko muy zikrul khas xaas al am comme ni mu waxee tanazzalul malaikatu war ruuxu jibril ci malaika yi la bok mais bu ne malaayikatu ba pare ne wat war ruuxu muy jibril parce que da koy setti ngir am lu mu joxon ci mom kon sa jeunesse ci sa dundu la bok hadith bi wax na ne dañ danañ la laaj sa dundu bi yëpp ba nga juddo ba ba ngay génn adina waye mu setti wat ne wa shababihi fima abla jeunesse am ci lan la ko ràppal jeunesse boobu ci ngay fàggoo alal mu ne wa maalihi min ayna kasab kasaba wa fii ma anfaqa sa alal ji nga xam ne yaa ngi ko fàggu fan nga ko jëlee ak ci loon ci lan nga ko dépensé wa maza amila bi ma alim ci sa jeunesse ci ngay jànge am xam-xam danañ la itam sa xam-xam nan nga ci def ndax jafe nga koom déet beneen hadis bu ibnu abbas solo yonent bi ne profitel ci ci ci ci ci mbir bala juromi mbir di ñew profitel ci sa jeunesse mom la jëkka a tudd nga xamne fi ngay commencé di gallo ay responsabilité motax mom la jëkka tudd profitel ci sa jeunesse bala ngay magat profitol ci sa wër gu yaram bala nga wëradi gis ngeen bi na bari fuuf moo taxoon bi ne nicmataani maghbuunun fiihima kasirun min annaas alsixatu ñaari xéewal a nii bu doon tey ci domaine commerce la nga ne ñu bari dañ cee daanu amuñ ci bénéfice ñu ne ko muy lan mu ne mooy wér-gu-yaram ak am jot arab bi wax ne inna shabaaba day diis wal jada mafsadatun lil mar'i ayya mafsada wala ayyu mafsada mu ne shabab mooy sa genes faraag mooy bi ngay am jot wal jada mooy bi ngay am alal mu ne ñett yi yàqute la ci doom aadama gumu ci yàqute ñu bàyyi ci loolu xel kon nag shabaab mooy masul mooy mooy mustaqbalu xeet wi Cheikh Ibrahima